yónneen maa ngi koy wéyal soppey muhammad rasulullaay way wii may wa yónneen maa ngi koy wéyal gaay yónneen bi seyduna muhammad bindam baa sellu jërëm ya jot mu sempal borom bokk maal du cuune kaare yaasin seyduna muhammad guddul ba ne sell waaju ko senne ci deful ab daañ ba tax fa yaasin seyduna muhammad muhammadu rasul rëyul ne fa tëx ni gaaye dox di fang di fang ba mel ni mbaa mi tukkal fa yaasin siduna Muhammad Muhammad Rasulullah wul ba ne kong yow yaroom du laal weñ siwul ba ne lamba xiit ak juufa yaasin seyduna muhammad muhammadu rasuulullaay bu mos naa kangre yow nga ne kongu tey sëy sumuña muy mel xat di mel xat fa yaasin waxoon naa laan waxoon naa laan dem leen seeti muhammadu rasuulullaay seyduna muhammad ya sodaani jóg leen déglu Moussa mu tagg fi Moustapha mi ñu tudde Yaasin seyduna muhammad ku wéytoo ci yónneen ba ca waayam xaraf ya nga di ngeen ko lëf yaasin ci yónneen nee na waaju ma tagg a way warlul naa la ajana faaw yaasin siduna Muhammad siduna Muhammad wetam dafa njañi loxoom yeneen laaj fa yaasin seyduna muhammad kilee jara way kilee jara dab di neexal di jox li bi door a cëm wa nabiyu rasul wal xalil wal وزليا يا إلهي وجيا أبدا أنا محمد المختار في الخدم كن لي دي ونني مغنم محمد رسول الله موي سين ويتل دغلول الاجي مالك لم wax mbokam ma Serigne Touba الاجي مالك نينا hadiyatil mujiba itlaabu alaaji Malik neena yow Sëriñ Tuuba muhabbatan ya yu xel baabu alaaji Malik neena adam rabbuna lana qabla almisaal wa kufana zara lazi haada almisaal Sëriñ Tuuba nena alaaji Malik jazaakumaa xayra jazal alwaa Tuubaa nee na Alaaji Maalik wa fi safil wi daadi laa tartaabu Sëriñ Tuubaa nee na Alaaji Maalik fa kayfa laa wal musafal mujaabu imaamuna wal xidu laa anxaabu kon loolu wane na ne mag ñi ñoom benn lan déglul Sidina Limaamu Laay ne fa yoo nee na waa këram bu leen fen bu leen jëwyaan bu leen bokku ci rambaaj li bàyyi laa di digle ngoobu loolu moo di jàllu ba lii lépp ki ko waral muy sayduna muhammad te man maa ngi ci yow may jaale yow jaal muhammad rasulullah ma jëlul keneen du ma jël fa yaasin